galle yaay mbër galle yaay mbër galle yaay mbër galle yaay su guddee fooy fanaan mbër galle yaay mbër galle yaay mbër galle yaay su guddee fooy fanaan bismillah bismillah inna wali yàlla asalaamaaleykum axlu lam asalaamaaleykum mbokk internet Kewel Info yi mbokk internet Diaspora làmb Diaspora ñu ngi leen di nuyu ah, di leen siyaar tey nag ñu teew ci làmb comme ni ñu koy defee saa su ne toog fee benn xale benn ndaanaan benn champion seen doom day organe moo ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak lu yaatu mu jóge ci bés nag démb bis bu doy waar am solo jëlee ci ndam lu rëy rëy moom caatu yoof doomu yoof fas yéene waxtaan ak moom ci lamb bi mu jógee ak caat fu mu jëm mais balaa boobu dama koy jox mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi champion caat maa ngi leen nuyu waaye maa ngi lay fay organe di nuyu waa Lamb Diaspora di nuyu xam nga Kewel Info xam nga di leen masawu baax a baax di nuyu Yoff gi yëpp sumay mbokk yëpp maa ngi leen nuyu Yoff xam nga Mbora Jogo xam nga Ngor Wakaam yëpp maa leen nuyu waa Ndar a nga bàyyiwuma kenn. waaw gannaaw baatu nuyoo caatu Yoff ñu gis nga jóge ci bés mais balaa bés bi avant ngay jël adversaire bi ñu bari dañ doon lim Caatu Yoof ak diw combat la Caatu Yoof ak diw combat la ñu xëy xëy gis nga jël Youssou Ndour lan moo taxoon nga jël Youssou Ndour. non xam nga tey man Youssou Ndour la te bii man mënuma kaa bañ ci làmb parce que dama jugee si ñaari combat ma jugee si ñaari combat après Fallou Ndiaye xam ne combat ma jël ko. Eh. Fallou Ndiaye la combat nga jël ko Assane Ndiaye tëggu moo ko tëgg ñu ngi koy nuyu bu baax hmm. nga jël Youssou Ndour ñu ne ah test la pour Caatu Yoof donte mooy favori donte am na lu mu wane mais Youssou Ndour day kat di kat loolu est-ce que nekkul woon pression si Thiat. non man am am benn pression parce que man xam nga liggéey laa xam man lépp lu mbër di indi rek jëntuwuma loolu man li ma war mooy entraîner def li ma war a def. Eh. entraîner def li nga war a def nga yàgg jël combat ñu ne warul woon jël kombaa bi Thiat dafa waroon xool feneen warul woon jël combat dafa waroon xool feneen nga jël Youssou Ndour ñu ne ah bii baax nag daj na. waaw di sant yàlla bu baax xam nga parce que mënuma ko mais yàlla moo def ma daan ko maa ngi sant bu baax mais ma ñu la bon bo booy bu ma topp rek da ngay xaar incha allah booy yëpp mënuma leen jeexal maa ngi tàllal sumay loxo grand frère képp koo xamante ni bëgg na làmb ju neex rek na ma jël mooy loolu. wax nga ne booy ku la topp day xaar caat moom loolu luñ ko dee la wala wala gëm nga moom lay waxee lan la. booy dama leen dàq bëre wu dëgg yàlla dama leen dama leen gën a pare quoi parce que ma amoo poids amoo dara mais damay liggéey arlet nice fu ne rek mën naa ko yàlla dimbali na ma si côté boobu quoi. su ma la déggee daal caat gën ko rey yomb na waaye bu ko doole yomb. waaw loolu la waaw. nga jël Youssou ñu gis préparation bi xawoon na difficile tuuti parce que si suba ba léegi ñu ngi fi di la ñu ne da nga demoon ci médecin bi affaire yooyu lan la la woon lan moo ne préparation. non préparation liggéey rek ma lépp li man lépp maa ngi koy si liggéey parce que dama yeewu ma heures du matin dama entraîné ngoon dem ma demaat entraîné man lépp laa loolu laa gëm quoi gëmuma leneen liggéey laa gëm bu bu jeexee jeex na ñu xool leneen mooy loolu. yan difficulté nga si dund parce que nga nga nga bëree le lendemain nga xëy dem hôpital lan la la. non xam nga xam nga vendredi dama demoon def massage léegi ñoom ñu jox ma rendez-vous mu ñëwaat tullantiwaat quoi mais amoon benn problème. waaw da nga def massage pour mun a moom sa bopp daal. waaw ok waaw. ñu ñëw nga ñëw ci làmb ji. caat mobilisé Youssou Ndour mobilisé caat sumeeku Youssou Ndour sumeeku ñu ne ah caat nag tey am na combat ndax adversaire bu mu dajal ah mun nañ ne mbër daal par rapport ak ñi fi ñi fi jugee mais bi mu sumeekoo ba gis ko sa xel lan la njëkk a dem. loolu lay ñaan yàlla xam nga am combat tey lii may combat bi loolu lay ñaan yàlla quoi non man am am sax xooluma ko sax dëgg yàlla li muy defal li mu defal yëpp di jëntiwuma ko man li ma war mooy tey nii laa war a bëre noonu lay bëree xaw ma ndigam noonu luur la xaw ma la. man li mu war a daal dinaa ko def si kàttanu yàlla. loolu xam nga adversaire bi dayo bi mu yor. non bu xooluma sax ba xam am man li ma li ma liir. bu ma leen dóor damay dóor bu damay song noo toll baax na nag. Mhm. Eh. mais ñu gis préparation musique bi yàggul lool lamb ñu bari di ko di ko naqarlu presque def ngeen une heure de temps yéen ñaar ci préparation musique bi lan la. non gars yi ñoo war a xam ne lamb lamb lamb lamb foo la mais ku daanu ruus mais gàcce boobu la ñuy bañ nag xam nga tey neexul nga bàyyi sa waa koñ say famille xam nga ñëpp toog di la xaar. neexul nga ñëw indiwaale defet defet nag yàlla moo koy joxe mais lépp li nga xam ne dalay may ndam rek di nga ko def pour am ndam quoi bu dee bu jëlee deux heures da war a moo demee noonu. Eh. ñu ñëw ci bëre bi arbitre soufflé caat déglu Youssou Ndour lan la dañ la dee ne la xeexkat la comme yow moo tax nga déglu ko wala. non Youssou Ndour man man man bi suma taxaw ma dama ko dama ko doon suivre di ko seetaan eh, moom ay réaction dafa yéex quoi eh, moo tax. réaction bi dafa yéex moo tax nga taxaw xaar ko. ma taxaw xaar ko xool ba xam dina ñëw. di def samay déplacement samay stratégie xam ba baaga ko foofu xeex quoi waaye. ñu gis caat bu caat bu dégloo adversaire bu ñëwul caat au lieu mu dem xeex adversaire du xeex ak moom caat da koy agressé la caat dañu tàmm dañu gis caat day agressé moom moom au lieu mu ñëw xeexal ma xeex mais day ñëw agressé adversaire lu waral loolu. man lépp laay def man xeex damay xeex damay agressé damay bëri man daal làmb lu ne samay sama sama bopp rek loolu laay def. Mm-hmm. mais làmb ji ñu bëri na ñaari bërikat lañ dëgg la ñaari xeexkat ngeen mais lan war a caat privilège wul bëri mu ñëw war a xeex xanaa da nga da nga déggoon ne dala dàq bëri non Youssou Ndour dàqu ma maa ko moom xeex xeex xeex la ma mënoon gagné mm-hmm. xeex la ma mënoon dominer quoi te yàlla man la dimbale ma gagné ko si xeex mais moom xeex moom moo ko moom mais man maa moom bëri moo woon xeex maa waaw parce que moom loolu la wax gis naa open presse mu takk gan xam nga di dóor gauche droite mm-hmm. xam nga xaw man man man entraînement laa laa ñuy sama open presse indiwuma yooyu noonu moom moom moom xeex maa moom bëre bi. moom moom xeex nga moom bëre bi nga ñëw duma ko ci xeex bi. dama ko fekk si man man nam rek. waaw wane que ñun man mën nañ lépp yàlla dimbali nañu si côté bépp. mais ñu bari ñu ne caat mën na bëre mën na xeex mais dafa soxor ndax bi nga ko dóoree mu tërëf ñu bari na mënoo ko daw yeggali rek mais da nga ko fekkaat beneen gauche droite. non de daanu man daal na daanu rek nu mu daanoo baax na. na daanu rek boobu daan daan lan bëgg victoire lan bëgg nu ko baax na buñ wekkee bañ sas baax na quoi. Eh. li gars wax daan rey ak daan suul sa yoon waaw kay waaw daan daan daan reetaan daal daanul rek. Hmm. Eh. waaw nga daan ko jël bu rëy lamb ñu bari nag ne jot na caatu yoof yéeg palier ba nga a ñu ne tey jot na caatu yoof yéeg palier. non waa lamb xam nga ay ay ay ay xam na ni ma waa lamb war a booleel. xam nañ bu baax promesse yi ma def xam nañ carrière yi ma def bu baax xam nañ épi man damay damay mobiliser xam nga man combat bi gën a baax daal gën a métti moom laa soxla quoi. combat bi gën baax gën a métti nga soxla. dem nga daan ci tàng tàng bi. ñu tàllale micro nga ne Sa Thiès na ñëw ñu waaw loolu li ma wax ba léegi duggee wu ma si de parce que géejawaay moom def naa fa quatre dugg naa fa quatre daan leen. géejawaay waaw daan naa fa Pambay daan naa ko fa daan Gakuda daan Pape Thiam daan kii nii Youssou Ndour waaw. te booy yu gën a tël laa daan nag. yu gën a tël nga daan ñu fàttali yaa ngi si 15 combats benn defet waaw 14 loolu laa am waaw. moom Franc moo la daan te Franc moo ma daan mun naa daan ku neen. Ah, na waaw. léegi mais lu tax nga ciblé Sa Thiès te Sa Thiès ay mbojam neexul. dama xam ne moo fa des kan laa mën a bëriwaatal. waaw. moo fa des dama ñëw même même sens ak neexal hmm. waaw. du Sa rek la am adversaire si làmb ji donte. daan nga na Sa na ñëw ñu bëre mais bu dul Sa Thiès ak ñenn ñoo nekk si kanam caar. bu dul Sa Thiès daal loxo yëpp maa ngay bàyyi si loxo Fallou Ndiaye parce que moom xam na làmb xam na ñi ma làmb boole moom instant yii moom mooy moo yor wàllu combat maa ngi koy bàyyi si loxoom quoi. Eh. Ah, yi dañuy wax dañ ñun dañuy dégg ñu duggee Yoff am na ay combat ñuy dégg ñu naan jot na caar ñu may ko sens lim nañ fi bàyyi ma ñoon loo wax ci combat ma may daal ma jël moo may sens suba suba ma chance laa bëgg rek mën a yéeg quoi mu war a dem ne au top quoi loolu laa bëgg. mais am na ñaari mbër yu amateur yu tudd. yëpp yëpp yëpp yëpp du samay adversaire ay doomu dànga ay jël yëpp du kii jëm teeru du samay adversaire samay adversaire ñeneen la ñu dul ñooñu. waaw ah. yow daal instant bi ñu supérieur ñooñu daal nga bëgg. waa kay ñu laa bëgg waaw. mais nga nga daan ma dalal la nga mbër boo tudd nga daanaat ma dalal la nga mbër boo tudd nga daanaat muy double moteur waa double moteur. yóbbante ma ne ma nel nel nel nel nel caatu yoof foofu du yoonam su bëggee daan rek nañu laal. aywa ñoo ko traîné kooku mooy neex daan na ñëw na ñëw ñu neexal ko. kan mooy neex daan. dugul moteur bi laay benn façon mbër laa muy plaqué bu mu dóor dama koy tegal tànk mu ñëw mu dóor ko mboot barke sëñ Bamba billaay kooku mooy neex daan. ay waay caat caat mafia bi tiim la nii ngay wax dugul moteur ngay wax de caat. non yooyu xam nga ne man mën waaye wax sax man xam nga ne géewu laa gën a mën. waaw ah, loolu de dëgg la waaw loolu am na nag waaw. mais double moteur ay mboj double moteur ngay wax de. double moteur daal sa mooy neex daan benn foor nga am muy plaque benn for muy plaque mënoo dóor mënoo mënoo def leneen. Eh. mais lu tax saa ne sa combat ak double moteur dañ koy dégg saa yu caa toogee nañ ma jox yow nga am yaqin ne yow double yaa ko mën wala. non double laaju de. du Moussa instant yii lu ma deful laaj ma ko de yaa yaa dugg di si cadre am moo tax ma wax si. non amateurs yi ñooy wax combat ma yeggee waaw moo tax ma ne laajuma ko parce que moom def fi dara mooy loolu laajuma ko quoi. mais yow ñu bari di daway mbojom yow nga ñëw dugg si ay mbojom da da yow yaa wala lan la. non moom ma euh, kii kenn mënul kenn yàlla moo mën moo mën mais man suñu ngëm-ngëm la ñuy waxee rek lépp lu ngëm moom dañ koy wax quoi. dégg ma mafia bi ne leen jéen kooku moom man man man ñemewu ma woon tudd mais comme que mafia bee tudd jéen. na ñëw rek ku ñëw baa ñu pare nan ay xale lan dañuy liggéey ñun ku mënoon ku mënoon daan si làmb amul. waaw mhm. ah, ñu gis caat ñu bari ne foo meegar la caat bu sumee ko ñu ne caat moom fu mu nekkoon xanaa entraîné wul mais waa Arou Souflé gars yu métti rek moo waral loolu yëpp man dama man arrête laa quoi bu dëgg yàlla li may li may posé si kilo bi laa walaay mbëru magi sax am na ñoo a ne ñu ko si kilo barke Seydina Mohamed. waaw ah, ñu bari ñu ne benn instant combat bi xawoon na diisoo parce que yoof bi nga nekk ngeen amoon trois combats ci benn journée ba pare yan bi diisoon trop. waaw maa ngi leen a masaw ñoom ñëpp xam ne yàlla moo dogal ñu daanu maa ngi leen a masaw prochain combat yàlla na mu neex xam eh, yàlla moo moo ma ma ndam rek. Eh. mais yoof dëkku lébu ku ne lébu na bëre. Mhm. wàccaayu combat bi lébu yi nan lañu ñu waajee woon waaw ñëpp waaj nañ ak sumay mbokk ñëpp ñëpp li ñu war a def def nañ ko xam nga man li mu waroon def def naa ko affaire ñu ko bàyyiwoon si loxo yàlla yàlla moo ko sottil jox ñu ko jox ndam li ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. Mm. waaw ñu gis ngeen amoon benn leader muy Malick Niang mu gëj ci làmb presque huit ans fan yi ñu koy dégg si MMA. moo am na combat moo am du ñu war a bëre semaine bii di ñëw nii ñu ngi si ñaanal ndam nag Milka waaw ñu ngi lay ñaanal ndam dóor mu daanu rek. mais bëre door bi Malick Niang la moo tax mu réer quoi. waaw affaire de chance rek xam nga yàlla moom mooy xool lu ko neex rek mu mu taxawal ko quoi mais du du ñàkk fayram du leneen jàmbaar la gërëyee la eh, yàlla na ko yàlla indiwaat nag. Hmm. Caatu Yoff ay jamono si ginnaaw ñu tàllal ko micro mu ne ñu laaj ko fi dàq bëre Caatu Yoff ak ndaanaan bi ne ci moom mu ne Balla Gaye 2 ñu gis Balla Gaye 2 jóge si combat ñu bari ne xàmmee wuñ ko Balla Gaye 2 bi ngeen woon moo dàq bëre keroog nga seetaan lamb ji ban jàngat nga may def ci combat Balla Gaye 2 boobu. non ba tey loolu laay moo fi dàq bëre. xam nga tey adduna dafa am lu lu gars yi mën mën da comprendre muy amul ku mu tolloo si si mbër yi macha allah kan la tolloo si nit ñi quoi si écrit yi xam nga amu si kooku neexul bëreel te Balla Gaye ndaanaan la mooy loolu. mais ni mu bëree ak état bi mu indi ñu bëri di critiquer état bi. xam nga bisu moo demee noonu rek mais xam nga Balla Gaye moom du jël combat Bombardier du toog di nelaw xam nga day liggéey liggéey lu si war mais Bombardier moo ne moo neexut a bëreel kooku nit kooku. Eh. Hmm. waaw mais ñu bàyyi nga tàggatoo. comme que wax daanaka daanaka wax nga lépp li nga fi yàq double moteur dina ko dégg mafia bi moom li ñuy wax jën kayre jën kayre dina ko dégg. waaw di santaat yàlla bu baax julliwaat si yonent bi santaat su may ñaari waaj santaat suma waa koñ bu baax waa koñ bi mag leen nuyu bu baax a baax baax am seen fay xam nga nuyu waa Yoff bu baax a baax baax nuyu autorité yëpp nag xam nga Moustapha taal jàpp na si combat bu baax a baax a baax xam nga Biram jàpp na si combat bi. Euh, prési euh, mos kii Abdoulaye jàpp na si ab Abdou Naar jàpp na si ñu ngi leen sant bu baax ah Adja Adja jawar ah, ñaareelu Abdou ñu ngi koy gërëm bu baax di ko gën a woo si combat yi nag di leen gën a woo ñu ne ñun doomu Yoff lan Yoff moo ñu ñor ñun dañ bëgg am champion comme ay Balla Gaye wala Modou Lo nañu jàppale ñun jeunesse yi ay Modou xam nga gin ñëpp am nañ talent boobu yàlla jàppale ñu ñu mën a àgg au top quoi incha allah. fi ñu tëjee rek. mooy Modou Lo Ama Baldé combat royal Modou Lo di xaar di bëre contre Kele Ama Baldé di agressé. waaw avant loolu damay nuyu moolu mbaal yëpp maa ngi leen nuyu parce que démb dama dama kontaan si moolu mbaal yëpp leen nuyu di jël nuyu ma Pape Mafal ñu ngi koy nuyu bu baax mu jàpp na si combat bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm waaw combat cinquante cinquante la rek ku ne mën naa daan sa morom parce que man làmb Modou Lo mu ngi liggéey Ama mu ngi liggéey. amul favori amul favori parce que Modou Lo bu may Ama Ama daan ko Ama bu mayee Modou Lo Modou Lo daan ko. Hmm. kontaan naa ci yow. jaajëf. noonu la demee woon champion bi la woon ah moom Thiatou Yoff jugee si ndam la am solo dégg ngeen li mu wax ah, di xale nekk si yoon nekk nekk mbëru réew nekk mbëru gox jugee si ndam la am solo moog Youssou Ndour ah, di ko wax làmb noonu la doon bëreel wax na ko nee na munu ma suñu borom moo may ndam kon ñu ngi koy waay moomoo di xaar ñu ngi lay encouragé di la wax làmb noonu la di félicité suma grand suma xarit El El Hadj bu Caatu Yoff moom kenn la ci man maa koy félicité di kontaan ci moom bu baax a baax a baax di kontaan ci ñëpp di jaajëfal ñëpp di leen wax ñu ngi leen jox rendez-vous beneen ci biir Kewel Info ak diaspora lamb diaspora ah nii lay demee rek di dugg si ruq yi di génn champion yi di génne ndaanaan yi waaw du ma dem te nuyu ma ki nga xamante ne kenn la ci man muy bàyyi salaam borom du kumaan borom bangaañ waaw moom ma li may wax rek maa ngi moom junneeg 5000 la maa ngi koy siyaar mais général bi kenn du yow kenn yow si mu réew général borom la 15 janvier di la wax yàlla na nga ko feetay at yu bëree bëri Baye Fall bi di nuyu suma caméraman Diaw Fara le caméraman des maa ngi koy nuyu di ko char di nuyu suma doom yaay Seexu le caméraman de lamb diaspora maa ngi koy char di nuyu ñëpp di jox rendez-vous ñëpp ci yeneen jamono li ma leen ko waxee rek ñun ak yéen ci biir làmb du jeex wasalaam bër gàlle yaay su guddee fooy yaay bër gàlle yaay yaay